faut que ma préciser man je suis pas parti j'étais candidat à la candidature j'avais fait mes parrainages j'ai arrêté et après je suis un des des de Karim Meïssa Wade. Okay. n'a rien à je suis pas dans le collectif de recalés mais euh, mmh. aujourd'hui ce sont mes collègues donc on est dans le même front l'explication kan la président ci collectif bi. non bokk na ci collectif mais. il faut il faut il faut nga indi ñi nga xam ni. dañoo indi seen parrainage déposé ko conseil constitutionnel ni leen soit seen clé mënuñu ko lire. soit euh, il vous manque man ak moo foofu man j'ai fait mon parrainage j'ai fait le choix après discussion avec Karim Wade Maïssa Wade de euh, sur le programme et sur le Sénégal en responsabilité mhm. de faire une coalition qui s'appelle k Karim 2024 donc ça c'est ça c'est ça c'est important de le préciser mm-hmm. la deuxième chose c'est que effectivement ñoom bi ñu demee foofu les doléances yi ñuy yóbbu parce que léegi xam naa ko parce que on fréquente c'est que y a yoo xam ni on les trouve pas dans les fichiers électoraux c'est grave mm. presque un million d'électeurs am ay candidats yoo xam ni dañuy ñëw déposer clé seen clé benn fichier moo si nekk ñu dem dellu si fekk fa sept fichiers donc du coup le président de effectivement dafa ni moom je respecte la séparation des pouvoirs et je il me semble man que ba jusqu'à présent au moment où il parle il n'a pas dit à l'Assemblée nationale fais ça il n'a pas dit au Conseil constitutionnel fais ça donc il l'a par contre lui man li ma yaakaar li ma xalaat man et c'est pour ça que je fais partie de ceux qui disent que euh, le président Macky Sall il a agi en responsabilité parce que situation bi ñu nekk nii c'est tellement grave bien sûr que yaa am na ñoo xam dañu bëgg dem élection coûte que coûte parce que dañuy yaakaar ni bëgg dem ñoom ils voulaient pas aller en aux élections mais tey comme que ñoom seen candidat jàll rek ay ça y est il faut que ñu dem élection malgré même si réew mi di tàkk c'est c'est pas leur problème. Amar question bi c'était pas ça dama que vous. K24 nga bokk. c'était quoi l'objectif la leen delloo leen seen i yelleef injustice bi ñu subir le président bi nga xam ne c'est le garant suprême des institutions. puisse réparer cette injustice-là, ou en tout cas faire des actions pour le faire.